société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may de presse dali na ñu ànd xëy yér yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi ko di cee xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky ñi ko doon laaj na leer na ñëw na ci réew mi ndax Macky Sall dafa amuloon ab tournée africaine ca diwaanu Kenya ci Rwanda ci Uganda Macky Sall na waaye nag Macky Sall ba muy génn réew mi dafa am ab laaj boo xam ne 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la loolee mooy ab laaj boo xam ne ba léegi gars yi ñoo ngi koy laaj te Macky Sall tontugu ci ndax am na ñenn ñoo xam ne njort nañu ne Mohamed Boun Abdallah Dionne la Macky Sall jiital ñenn ñu njort ne Amadou Ba la jiital ñenn ñu njort ne Aly Ngouille Ndiaye la jiital ñenn ñu njort ne Abdoulaye Daouda Diallo lay jiital ñenn ñu njort ne Abdoulaye Diouf Sarr lay jiital waaye ba léegi njiitu réew mi di président Macky Sall moo yor cëggul gu yama moom la gars yi di xaara moom la gars yi di dégloo waaye nag moo Macky Sall mbir mu yombul ci moom ndax jamono ji nga xam ne ñëpp a ngi koy déglu parti bi nga xam ne mooy APR Sall dafa pëccëxoo ba ñëpp teg seen bët ba ñëpp xam ne parti bi dafa pëccëxoo Macky Sall jamono ji maanaam mu tànn kan mooy jiite coalition Benno Bokk Yaakaar nekkul mbir moo xam ne maanaam mbir mu yomb la mbir la moo xam ne mbir mu jafe-jafe la mbir la ci biir mbir yi ndax bëri na ñoo xam ne bu Macky Sall ne diw mooy candidat bi am na ñoo xam ne mën nañoo fippu taxaw ne candidat la ñu loolee Macky Sall na ko sóoraale bu baax a baax tànn bi bu baaxul musiba mën naa am làmbaay mën naa ñaaw yéen a kaay gi de la turbine xëy duñu xibaar naan ñu en Bokk Yaakaar jamono ji ñoom ñoo ngi ci guddi gu bët séddu ko la ndax am na allié yoo xam ne jamono ji ñoo ngi defar seeni bagage tànn bi Macky Sall war a tànn bu tànn boobee baaxul rek njombe mën naa am yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy di ñu xibaar naan ñu fin de règne maanaam nguur gu jeex lu tëgg tas loole la ñu gis ndax mbir yi ni muy doxee jamono ji ku ko gis sax xam ne nguuru Macky Sall gi jeex na tàkk ndax ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar am na ñoo xam ne dañoo mer ba mara détail yi gi commencé nañ koo gis ñenn ñi di xeexoo ci seen biir loolee mooy fin de règne xam ne dara du ko dindi de nguur ga jeex na lu tëgg tas yéene kaay gi di ko di jeex du ñu xibaar naan ñu Macky ci boppam ak parti bi nga xam ne dafa pëcc xooba maara de tali lii lépp Macky Sall waxoon na ko ndax kero bi nga xam ne maa ngi dalal nga xam ne ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar waxoon na leen na leen bu ngeen xaajali ko maanaam élection yi da ngeen koy ñàkk la leen Macky Sall waxoon na leen bu leen xaajali ko loolee dafa mel ni gars yi dégguñu ko ndax xam ne ñoo ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr ak ñi ànd ak ko fan yi nga xam ne moom la ñu yéen ñëpp yéen a si teg seen bët bi nga xam ne jamono ji moo am ci biir APR muy pëccëxoo goo xam ne niroo na ak sabar gu tas maanaam armée mexicaine loolee nag du ñu wax guleet ndax nekkul mbir moo xam ne mbir la mu bees ci APR du lu bees te nag Macky Sall situation bi bu ko réglé wula li nga xam ne moom lay jur du jur jàmm ndax mën naa tànn koo xam ne dina am ay vote sanction waaye timin Macky Sall mën naa tànn koo xam ne frustration bi gedd gi dina mel ni tulleeg am na si ñenn ñoo xam ne bu Macky Sall tànne mën nañu jugee sax ci biir coalition bi jóge ci biir APR réew mi quotidien xëy sampab laaj nee na njiitu réew jafe-jafe yi nga xam ne jamono jii maanaam am na ko ci biir APR ak kàngam yi nga xam ne ñoo ngi fëgg seen dënd ndax Macky Sall mën na ko lijjante yéen kaay gi di enquête nee na lijjanti ko du nekk loo xam ne lu yomb lay doon waaye nag yéex a tànn gi Macky Sall yéex a tànn kan muy jiite coalition Benno Bokk Yaakaar loolee moo gën a andi ay complication ci mbir yi maanaam loolee dafay gën a jaxase mbir yi yéen gi de la turbine xëy duñu xibaar naan ñu kër yi bi nga xam ne maanaam coow li bëri woon na ci lool kër yi googe yooyee danañu ko daal di supprimer journal bi nee na Macky Sall nag ma ngi moytul ñi nga xam ne ñooy ay jege ñaaleem kër yi Macky Sall dina fexe ba ñu mucc maanaam ci kër yi journal bi di la Soleil ci xëtam mu njëkk mu xëy fësal te na kër yi dañ ko fi jëlee waaye bu ñu ko fi jëlee tamit dañ fi indi li nga xam ne mooy ab parc financier parc financier boo xam ne dina xeex lépp loo xam ne jëm na ci lu bala alalu askan we yéen kay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar na ñu assemblée nationale tey ji danañu amal lu jëm ci wàllum révision constitution bi ak lu soxal wàllum code pénal yéen kay gi de la témoin benn révision code électoral bi tey jii la ci assemblée nationale journal bi na ma ko mooy jour de vérité pour Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall yéen kaay gi nee ñoo ngi jëm nag ci jox ab kiitis boo xam ne Khalifa ak Karima danañu mën a bokk ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéen kaay gi de Les Échos xëy duñu xibaar naan ñu jaaña njaay ñoo koy tudd ci lu jëm ci mbiri Isabella Adjini mi nga xam ne tudd nañu ko si lu soxal wàllum fraude fiscale ak lu soxal wàllum blanchiment d'argent ci diwaanu France yéen kaay gi de L'Observateur xëy wax ci enquête covid 19 bi ak enquête yi nga xam ne waa dikk doon nañu ko si def lu toll si ñaari téeméer ko jébbal ko procureur journal bi nee na ñi xam ne njort nañu ne dañoo luubal alalu askan wi ci lu jëm ci fond covid 19 bi maanaam enquête nañu leen ci lu jëm ci seen wàllum patrimoine maanaam seen wàllum am-am li ñu amee loolee na nañ leen si journal bi nee ca banque yi tamit dem nañu fa xool ba xam ñoom am nañu koppar yu bari ci banque yi waaye tamit lu jëm ci wàllum cabinet notaire loolee tamit waa dikk lëmbën nañu ko waa dikk yemuñu foofu ndax nag lu soxal wàllum connexion yi nga xam ne ñenn ci daas yi ak fournisseurs yi am nañu ko te ñu njort ne am na ay leesuuxu la loolee lépp enquêteurs yi enquête nañu sa journal bi nee na ginnaaw bi ñu enquêté ba pare nag li nga xam ne moom la enquêteurs yi gis maanaam lu jëm ci wàllum détournement dernier public maanaam luubal àllu askan we ba tey tamit gis nañ lu jëm ci wàllum faux usage de faux yéen kay gi di source nee na askanu Sénégal ndax yëg ngeen li nga xam ne moo ama ci aéroport international Blaise Diagne loolee la journal bi xëy di laaj na askanu Sénégal ndax yëg ngeen li xam ne moo xew ay AIBD ndax Doudou Ka mii nga xam ne ministre la duudu Ka ba mu nekkee directeur général bu AIBD bis ba nga xam ne nommé nañu ko na ko Doudou Ka léegi nekkatoo directeur général ay AIBD waaye ministre lañ la def Doudou Ka avant muy defar ay bagage sama dafa def ay recrutement yoo xam ne ëpp na téeméer ci nit maanaam dugg leen ci aéroport bu Ziguinchor bi nga xam ne maanaam dañ koy defaraata maanaam muy fay ay nit ñoo xam ne liggéeyuñu lenn journal bi du Source A moo xëy di ko càmbar waaye nag nee na li nga xam ne Doudou Ka def na ko lu mu garaaw garaaw li Abdoulaye Dièye def directeur général bu